ñuy waxtaanee kon euh, Achoura euh, ku ko wax nag euh, sa xel dafay dem ci tamxarit tamxarit nag Sénégal xëy na ni ñu ko xamee am na lu bari lu des loo xam ni warees naka caa mën a indiwaat bu ko defee ñu gën a peek solos bés bi looloo waral nag ñu dalal tey imaam Abdoulahi Baba Dieng imaam asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay am mbégte lool dalal ci Demb ak Tay waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna si ñu nit ñuy am mbégte lool euh, nekk ak yéen ci seen émission démb ak tey alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala waaw man day Abdallah Baba Dieng laa dëkk Louga di benn donga rek nag ci donga yu ñàkk solo yi Imaam euh, yaa nga nekk ca Louga di yëngu aussi ci ci rajo boo ñu mënee ñëwal tuuti ci sa liggéey ak euh, xëy na euh, sam njàng li mu gën a jëmee bu ko defee ñu ñu gën a xëy na mën a xam yow yaay kan doo gisoo bu ci waxtaan bi. waaw man Abdoulaye Baba Dieng la tudd dëkk fi Louga fi laa jàngee nag ba am sama bac ci arab jóge fi dem université Médine. salaa amee sama maîtrise ci wàllu xaddis ak xam-xamu xaddis après ñibbisiwaat naa delluwaat fi euh, Riyad dafa benn diplôme après Égypte salaa dafa sama thèse euh, magistère doctorat bi encore euh, falaa koy defee nii mais boobu moom dafa fekk maam ñibbisi naa maa ngi Sénégal maa ngi fi nag di jàngale maa ngi tamit jàngale ci état bi ci lycée yi fi ci Louga. jiite benn rajo encore boo xam ne rajo Leeral FM la tudd cent quatre point six yàlla na tooma ah, ma koy coordonné mm, di jàngalekat wootekat euh, imam mm-hmm. ci loolu loolu daal muy suñu yëngatu mm-hmm. imam ci xibaar yooyu yëpp nga ñu jox ci yow alors ni ma ko waxee nag euh, Sénégal euh, daal dina ñuy célébrer li ñu naan tamxarit tamxarit nag euh, ni ñu ko xamee muy euh, fukkeelu bés euh, ci weer bi nga xam ne moo di muharram ñu naan ko ashura imam ashura boobu ñu ne ci taarix ay xew-xew yu bari am na ci boobu le bés ñu mhm. buggoon nga dellu siwaatal ñu ci bés yooyu laataa ñuy taxaw nag bu ci nekk ci moom ak jàngat yi ñu ci mën a def dëgg la soxna si bisu ashura wër na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci xadis ni bi mu jógee Màkka ñëw Medina euh, gis na yahudi juif yi di waajal woor benn bis xëy na loolu kon ci guddi gi wala ca bis ba ko jiitu mm-hmm. mu ni ñii lu ñuy lu ñuy waajal ak lu ñuy bëgg a def ñu ni ko euh, danooy woor suba mu ne leen lu tax ñu leeral ko nag histoire bu amoon démb mm-hmm. mu mën a dëppoog sa émission démb ak tey mm-hmm. ñu ni ko parce que ci bis bi mooy bis bi nga xamee ni ci la yàlla musaloon Moussa alayhi salaatu wassalaam ci firawna hmm. xam nga ni euh, firawna ba mu jéemee ci Moussa sottiwul da ko menacé ne ko da koy rey Moussa hmm. daw ak ñim àndal euh, jëm Palestine euh, bi ñëwee ba ci ndox mi ndox mi ne seen kanam noon bi nekk seen ginnaaw waaye yàlla daf ne ko xuusal xar dex gi mu nekk ñaar Moussa xuus dem ba génn bi muy génn fekk Firawna mi ngi ci digg bi yàlla labal ko euh, loolu ci bisu Ashura la xewe woon te bin ko xew yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi euh, weddiwu ko néewu leen déedéet bis boobu loolu amu ci woon dafa leen ni ah, loolu tax ngeen di woor waaye ñun ñoo leen gën a yay ci Moussa yonent bi ni kon man dama koy woor digal saxaaba yi ñu koy woor léegi nag lii moom lu wér ci ay texte yoo xam ne di nga ko mën a démontrer ci wàllu xadis nee naa la euh, sama maîtrise ci xam-xamu xadis ak ñu ñuy démontrer xadis bu wér ak bu ci laa ko def mais am na nag yeneen yoo xam ne yuñ ci dolliwaat nag yooyu moom pour nga amal ko càllale amal ko chaîne boo xam ni bu bu mucc ayib la dina xaw a jafe am na yeneen yuñ ciy dolliwaat yu bari Eh, yee saa nga dégg ñu ci leen bind aadama yee saa nga dégg ñeneen ci la Ibrahima la ci leen ko dugal ca taal ba yee nga dégg ñu la maam yeneen daal ci la Moussa ci la noox eh, dugal ca gaal ga mais yooyu yëpp daal pour nga amal ko càllale dina xaw a jafe tuuti mais lii moom lu wér la ñaw ci téere yu weer yu mel ni Saxiixul Buxaari ak Saxiix Muslim lii ci histoire moo ci xew njëkk yonent bi léegi nag am na leneen lu ci xewaatoon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masalan atum 61 ci gàddaay gi euh, ca Karbala bi xeex di am diggante Xuseyn radiyallahu taala anhu doomu Ali ibn Abi Talib ak Fatima bi muy xeex ak euh, soldaar yi nga xam ne ñoo nekkoon Irak te gouverneur ba fa nekkoon di ñu koy tudde Ubaydullah ibnu Ziyad mu yabaloon ñam yabaloon ñu daje ca Karbala xeex boobu bisu Euh, Ashura la nekkoon muy dixième jour ci weeru muharram ci weeru tamxarit imaam ndax bu weesoo xew-xew bi am na beneen bu ci am ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi te ñu mën caa sukkandiku xëy na am euh, lu ñuy def ci bésu assura bi waaw loo xam ne am na ci ba jeexantal euh, ci Ashura wala mu wala mu indi ay position ci jullit ñi loolu moom jàpp naa ni amul wala boog bu amee man teewloo ma ko parce que lu tax boobu mu mu ñu mën koo tudd. Hmm. suñ duggee ci biir waxtaan bi di nga ko xam dafa hmm. tax am benn kuréel boo xam ne nag dañoo jël assura gisee ko waat naneen nag. Hmm. waaw. imam wax nga ko euh, sa xam-xam ci wàllu xadis la gën a màcc jëm ndax moom nga jàng ana yan xadis la yonent bi loolu mooy loolu mooy ci sama maîtrise ni ma la ko waxee ci sa maîtrise kii maa ngi ko def ci wàllu comme yii ñuy waxtaane nii rek histoire yeeg euh, euh, euh, ci pas-pas xew-xew yi nga xam ne ci la mooy xew ci ci chute yeeg yu demee noonu. d'accord macha allah alors ci xadis yi d'abord ana yan xadis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ci ashura gi ak ni ñu ci war a taxawee jullit ñi. ah laaj bu am solo la soxna si laaj bu am am am solo loolu lu tax ma ne laaj bu am solo sax ma taxaw ci jullit ñëpp loolu la ñu waroon a laaj asura am na na fi yonent bi lan la ci yonent bi addu bu ñu wax ana yan xadis mooy ana yan wax mm-hmm. wax yonent bi sallallahu wa sallam mooy xadis wala jëfam wala lu ñu jëf ci kanamam mm-hmm. mu wéyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booy wër euh, li mu wax lépp lépp lépp ci bisu asura soxna si génnul ñu woor ko mm-hmm. li tamit ci bisu asura génnul ñu woor ko li nu jëf ci kanamam yépp ay saxaabaam jëf ko ci bisu asura mu wéyal ko génnul koor yonent bi dafa woor wax saxaaba yi ni ko leen dee leen ko woor bis boobu sa année boobu sax danoo ne dañ ko da ko farataaloon mm. ñëpp woor mais mois jëm huit mois après yàlla wàcceb laaya ni ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ñu farataal weeru koor mu ne kon dara nekkatul farata ci koor lu dul weeru koor mu ne nag bis bii nga xam ni nag mooy bisu ashura kum neex nga woor kum neex nga bañ a woor man shaa falyasum wa man shaa falyaftur moom mu continuer di ko woor saxaaba yi comme ñoom dañoo xir ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu topp di ko roy di woor mais yonent bi dafa amoon politique boo xam ni ci lay xëcce jullit ñi pour ñu am tuyaaba yu bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax loo xam nag yàlla yàllaa ko koy digal ndax yonent bi moom wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax yàllaa ko wax la yonent bi ni leen képp ku woor bisu ashura xoolal tuyaaba bu rëy bi ci nekk nag loolu di nga xool après comme ni nga tàmbale woon nga gis ni ñu bëre bëri dinañ sonn ci bisu ashura def ci lu nekk ba des li ci yonent bi santaane te amul tuyaaba bu gën a rëy tuyaaba bi parce que bii yonent bi moo ko joxe moom caché ko hmm. baneen bu mënti doon yonent bi caché wu ko hmm. te ba mu caché nag ëllëg yowmal qiyaam boobu moo wóor ko nga fayee ko ci hmm. bi ni képp ku wóor bisu tam xarit yàlla jéggal la sa bakkaaru at trois cent soixante cinq jours nga defoon fa ay ay ay ay nit defoon fa ay loxoor defoon fa ay njuumte defoon fa ay erreur yu bëree bëree bëree bëri yàlla effacé ko cinquante deux semaines saxaaba yi nag gën cee góorgóorlu di woor bi mu demee nag ba ba woor neuvième année bi mm. ba pare nag mu def benn mébét bu rëy te mm. mu ni déwén day su fi yàlla bàyyee duma woor rek dixième jour bi dinaa woor dixième jour bi muy bisu ashura bi mais dinaa woor neuvième jour bi muy bis bi njëkk bisu ashura su ma la ko bëggoon a tënkal pour nga xam bis bi njëkk bi su Achoura mooy bis bi nga xam ni ci guddi gi. Mhm. waa Sénégal di togg cereeg di tëgg ak di taaja boon ak di ah, kon bés boobu danoo waroo yendoo woor. waroon a yendoo woor. guddi ñu lekk cere. suñu euh, waaw maa ngi ñëw ci loolu. Mhm. ba xam ne mais maa ngi ci ñëw ci li yonent bi dana waroon a yendoo woor. Mhm. su dogu jotee nag ñu dogu. waaw bi bi waxee loolu. Mm, euh, ci euh, anam bu mujj ci atam bu mujj bi mu wooree la mën na sax dixième année bi la. Mm-hmm. yàlla ginnaaw deux mois et quelques jëm trois mois mu faat ko. Mm-hmm. ndax ci weeru tamxarit la bi demee ci weeru euh, li ñu tuddee rabiul awwal weeru gàmmu yonent bi faatu. Mm-hmm. te foofu mi ko waxoon ci xadis bu wér bu ñëw ci sax muslim mu la in baqitu ila qaabilin la asuuman na taasi ama su ma fi yàlla ba déwoon dinaa woor neuvième jour boole ko dixième jour bi saxaaba yi ni mais comme yonent la mébatoon te waxoon ko digle woon ko kon mm. lii ci sunnaam la kon na nañuy woor neuvième jour bi ak dixième jour bi mm. loolu la saxaaba yi nekk ba ñu faatu xamuñu leneen lu dul lii mm. ñi ñu yaroon ci loolu la ñu nekkoon xamuñu lu dul loolu ñi ñëw seen ginnaaw ba ci borom ngiir yi ngiiru abu xanifa ngiiru malik bi nga xam ne ñoon waa sénégal ci lan nekk mhm. ngiiru al imaamu shafii mu muhammad ibnu idris ngiiru imam ahmad ibnu hambal shaybaani ñoom ñëpp koo ci ne woon pëkk pëkk pëkk lan mooy li ñu war a def ci bisu tamxarit dañ naan la ludul woor amu ca hmm. mais nag ñu dem ba jamono ñu dem ba jamono après nag am yoo xam ne nag tàmbali na di feeñ loo xam ne euh, ay déviation la waaye daal ci gàttal ci laaj bi nga doon laaj. Mm-hmm. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci xadisam ak waxam li ci wér lenn rek la mooy ñu woor ko ñaan yàlla subhanahu wa taala tuyaaba ja ca nekk ñu am ko leneen lu dul loolu yonent bi santaane wu ko déglewu ko. Mm-hmm. déviation yooyu ngay wax yan la. déviation yi dañoo dem ba jamono ci histoire nit ñi tàqali ko Euh, nit ñi wàcc euh, ci yoon ñaar la nag am na ñu wàcce côté gauche am na ñu wàcce beneen côté bi mm-hmm. muy ñaari bidaa nag yu ci yu ci sosu yoo xam ne ay bidaa yu rëy la te te yu lor lislaam la tamit mm-hmm. yu lor lislaam la yu lor jullit ñi la parce que bu ci nekk bu déviation amee dina am ñum yóbbaale mm-hmm. bi ci njëkk mooy déviation ñu tuddee chiite yi chia yi chia hmm. yi ma la ko bëggee rek mooy ñooñu noonoo saxaaba yi ñi xam ne ñooy euh, ŋàññ ak di saaga Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak di hmm. tuumal Aïcha radiallahu anha Xafsa ci ay wax yu ñaaw hmm. pour la ñen mooy chia yi ah euh, ak di mbubboo ni Ali ibn Abi Talib ñu topp fekk topp ñu Ali Ali moom ku fonkoon Aboubacar la ku fonkoon Omar la ku fonkoon Ousmane la ak naan Xussein la ñuy topp chia yooyu ci lan rayoon ci histoire Xuseyna euh, ca Karbala mm-hmm. moog ñam àndaloon muy atum soixante et ci gàddaay gi mm-hmm. kon bis boobu bisu naqar la war a doon ñoom bu ñëwee nu ñuy def bu ñëwee dañuy simmi seen yaram yi jël ay chaîne ay paaka mm-hmm. ay jaasi di dóor seen yaram yi di dagg deret ji di sotti yeesa dañ koy def seen bopp di ko def seen doom yi di ko def jigéen ñi sol yu ñuul kukk loolu nag ban ko tàmbali yàgg na mais ba fii may wax ak yow nii ñu koy def. Hmm. boo seetaanoon seen télé da nga koy gis. Hmm. moo tax bu jotee lu bëree bëri ci ñoom dañuy dee. Hmm. parce que loolu la ñuy def euh, di di di dof dof lu di boole ci nag ak wax yu ñaaw yi ñuy wax nag Aboubacar ak Omar a wallahi yoo xam ne te yemul sax nag ci si euh, ay euh, ya nekk ci dëkk naar ya. donte donte fa la tàmbalee ca ah. Irak ak yu demee noonu. ak. ak Iran ak yeneen demi noonu ah, mais law na ba egsi ci réew. ñu ngi koy def fii. sun réew liñ ci def xam nga ñon nag africain am nañ ci euh, euh, wax ni rek waaye am na yoo xam ne yeesaan ñemewuñ ko. Mhm. fii moom àggagunu di simmi taxaw ci mbedd mi di door seen yaram yeeg di euh, jam seen bopp àggagun fa. Mhm. mais dinañ dugg ci fu ñuy wax alxuseyniyaat foofu ci Dakar am na fa mën naa leen ne place nangam place nangam. loolu dugg dañuy nekk foofa. léegi nag euh, ñu ni dañuy waxtaan ci Karbala léegi nag lu ñaaw lu nekk. dinañ ko yàq Aboubacar ay bërëb la daal yu moom. Hmm? Ah, ma ay bërëb la loolu nga tuddoo. ay bërëb la yoo xam ne seen i bërëb la yu ñu fay tëju. d'accord léegi loolu man soo fa nekkee li ñuy bëgg def ci yow pendant dix jours yi. Mhm. ba kii mooy soo fa jugee yow boo gisoon ku ku tudd Aboubacar sax boo moytu da nga koy da koy bëgg a jam. Hmm? yow yow su fekkoon ni sa baay Aboubacar la la tudde woon wala Omar la la tudde woon wala Aïcha. Mhm. ci di nga changé surtout parce que da nga naan ñii ay yéeféer leen ñii ay naafiq nanga gis xale yoo xam ne changé nañ seeni tur hmm. am na xale boo xam ne euh, Aboubacar la tudd changé turam tudd boppam tudd boppam Yaxya hmm. am na ci ñu ma xam laala comme ni may waxee yow nii hmm. am na ci koo xam ne Omar la tuddoon mais bi mu bi mu demee Omar Ka bi mu demee ma Iran jàngi ba mu ñëwee changé turam tuddee boppam léegi Ka pour bëgg la wax ne la ci mm-hmm. bis yooyu dañuy wax ci euh, saxaaba yi wax yu ñaaw léegi nag ñoom dañoo ni bis boobu nag bisu naqar la bisu métit la bisu dëj la bu jotee kon nañ ci métitlu nañ ci dóor suñu bopp nañ ci euh, ŋàññi ak di saaga ñun mën a ŋàññi ci ñi nga xam ni ñoo rayoon Xuseyn wala seen seen seen kilifa yi leen ko yi leen ko euh, digaloon donte Xuseyn wax dëgg yàlla bi muy faatu fekk na abu Aboubacar faatu na lu war a mat cinquante neuf avant hmm. waaw fekk na Omar ibnul Xattaab faatu na presque euh, lu ëpp maam quarante ans fekk na Ousmane faatu avant loolu lu euh, jege vingt et quelque ans mais euh, comme noonoo ba rek maam ci ñoom la moo tax ñu laaw leen ci léegi nag foofu da nga di nga taxaw tuuti nga gis ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatu na te kenn deful bis bi chaque bu ñëwee ñu ci ñu ci dóor suñu bopp mhm. Abu Bakar kadhalika Omar ibn Khattab bi nga xam dañ koo faat mhm. mm, eh, ki ko faat di eh, eh, abul ulul majuus yi benn benn benn majuus mhm. donte ñoom koy fetal dañ koy fetal bis bi nu bi nu rayee Omar dañ koy fetal mhm. Omar xam nga moo gan Xoseyn xam nga moo gan Xoseyn Ali ibn Abi Talib dañ koo Abdurahman ibn Muljim moo ko rey te bisam eh, biñ ko faat kenn defu ko bisu naqar di ci dóor su te moom moo gën Xuseyn mm-hmm. parce que ñeenti saxaaba yooyu ni ñu toftaloo ci xilaafa noonu la ñu gënante mm-hmm. kon loolu mooy eh, biddaa bu njëkk bi nga xam ne lor na lislaam bu baax a baax a baax lor na jullit ñi tamit mm-hmm. beneen bi mooy ñi nga xam ne nag dañ koo jàppe bisu caaxaan bisu kaf bisu ndëngate bisu fo bisu reetaan tëgg fecci góor ñi sol yëre jigéen jigéen ñi sol yére góor ñuy pastelu nga gis góor goo xam ne mi ngi si si ki taxawal këram waroon na am yoru fullaak fayda ah mais nga gis ko mu dem sol ay sicce ngoos ay robbu ah puudaru pastelu ah takk ay jaaroom ah euh, wër kër yi nan taaja bon yéey saa sax bàyyi na léegi dañuy dem ba ci télé yi malheureusement sunu télé yeeg sunu rajo yu bëree bëri bëri man xawma vraiment euh, formation euh, bi ñu leen defal euh, lu tax lu tax lu tax lu tax duñ ko appliqué wala ñu bëri ci ñoom duñ ko appliqué. Hmm. parce ko mooy xool li jëriñ nga koy defal askan wi mais mbalit pas mu nekk rek parce que suñuy doom suñuy rak suñuy nangam te télé beeg rajo bi dafa mën a influencer lu bëree bëri bëri bëri. wane koo xam ne ab star la buñ koy jàppe fii ci Sénégal star buñ euh, mu dem sol ay yére jigéen taxaw ni day taaje boon mais xale bi nga xam ni ma ngi ko doon seetaan ndax ca musique am ca feccam ca suba da koy def mm-hmm. gis ab jigéen joo xam ne moom it nangam a ah, ab fecckat la wala ab mbandkat wala nangam la mu dem de sol yére góor ñu ni eh ne ni def taaje spécial yóbbu ko ci télé yi mm-hmm. nangam yooyu mm, dem moom Euh, jël beneen côté loolu fan lañ ko teg ndax dafa am ci cosaan loo xam ne ci li nga xam wekk nañ ko fa ba euh, di ko doxal ci réew mi tey ndax li ngay wax moom Sénégal la xewee ñëpp xam nañ ko. waaw léegi luy gis dafay am fu muy tàmbalee ndànk. Mm. di yaatu di dem. Mm. Euh, bi lële amee chiites yi jàppe lële bisu de mm. di ko méttiwul dafa am ñu ñuy tudde an nawaasib ci histoire ñooñu. Euh, dañoo euh, noonoo woon ak lenn ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme am na euh, après non pas waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa mais lanoo noono ñooñu di tudde seen bopp ay chiite hmm. ci benn côté hmm. ñoom nag léegi bu ñëwee pour ñu kokkali leen hmm. ñoom it ñu jàpp bisu bànneex ah comme ñële bésu lañ ko def ñoom ñu def ko ñu def ko bisu bànneex di ci sotti seen seen seen reer ah di ci tëgg di fecci di ko këli xam nga ki nga mi ngi mi ngi mer wala mi ci jooy nga koy ko mm-hmm. yaa ngi mu nekk ñaari ñaari camp. Mm-hmm. mais ñaari camp yi yëpp camp yu réer la. Mm-hmm. ba ñu réer la jëm na le ñee réer jëm na le. yo lii lépp nag ci réewu naar yi la. moo tax eh, képp ku ci def benn bu mënti doon rek ca naar nga ko jëlee. ñu dem ba ci ba ci jamono. xam nga lu boobaa day tas rek. ñun nag bi bi tas bi njëkk tas. ñëw ci suñ boor yi mooy ñi ko doon jàppe bisu bànneex ak yu demee noonu. Mm-hmm. bi mu ñëwee nag a ah, fekk fi tamit suñuy aada ñu yokkaat ci nag suñuy aada ñun. Mm-hmm. sénégaliser ko. suñuy aada ceddo nag laa wax. Mm-hmm. du suñuy aada diine mukk ndax am na ñu baax ñu fi nekkoon. ay maam yu baax ngi fa woon yoo xam ne nitu diine lañ woon doon doxal diine. yaa ngi dégg. kon ay ay ay ay aada aadaay do laa wax. mbir mi di tas ñu koy ñu ñu def affaire u ceddo euh, taaja bon bi nii dugg ci góor ñeeg jigéen ñi tàmbali nag léegi sax ñii di sol yére góor ñii di sol yére jigéen ah ak yu demee noonu léegi ca foofa ca ca àllu Irak bi am ñu baax tamit ñoo xam ne ñu bëgg lu baax la ñu ni daal ñii li ñuy def caaxaan la muy chiites yi ñii tamit li ñuy def caaxaan la di tëgg ak di fecc ak di def yooyu. Hmm. loolu tamit ak ndëngate la. kon war nañoo xëccaat nit ñi ñu dem ci jaamu yàlla ba fàtte lool au lieu que ñu ni leen rek yonent bi daal lii la ci euh, digle mooy de leen ko woor mais non non ci indi ñoom yeneen yuñ ci sos ba pare nag askane la ko yonent bi loolu tamit nekk lu grave. Hmm. ñu indi ci leneen yoo xam ko cee sos ba pare askan la ko yonent bi loolu tuumaal yonent bi la tamit nag wax dëgg yàlla ak loo bëgg-bëgg lu baax mhm. bul ni lu baax li yonent bi ak santaan te santaane wu ñu ni nag kon ku ci euh, ku ci ku ci jàng junni xulwa mhm. di nga ci am nangam ak nangam fu ngeen ko jële ñu ni yonent ko wax ku ci julli téeméeri rakk ci guddi gi di nga am nangam ak nangam fu ngeen ko jële ñu ni yonent bee ko wax ku ci tus ngalu sa sa bët soo xoolee ci jant bi di nga gis Fatima muy fóotal Ali di fete hmm. ku ko wax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam lu ne ñu dugal ko ci hmm. mbir ma nag loolu it tas lu war a mat fukki mbir hmm. dem na sax ba ci ziyaare ji boroom xam-xam xam nga yoo loolu lu baax la naafila lu baax la jàng xulwa lu baax la euh, ziyaare borom xam-xam lu baax la mais boo ko bëggee tënk ci benn bis ci benn guddi wala ci benn heure bu boobaa da koy jële ci jaamu yàlla dugal ko ci bidaa mhm. loolu mooy inconvénient bi mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax ci eh, ko waxal loo xam ne waxu ko yonent bi nee na man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaaduhu min an naar ci nettali mu ni fi naar képp koo xam ne sosal nga ma waxal nga ma lu ma waxu mhm. moo xam da nga maa a waxal loo maanaam baax ba ba dugal ci diine a lu ma ci dugalul hmm. moo xam da ngaa bëgg a waxaat safaan ba ku ko ci def yow ba boo nga préparé sa kër ca safar xam nga loolu dafa dafa garaaw hmm. dafa garaaw hmm. moo tax imaam ubbi parenthèse ci mhm. xadis yi gannaaw sa xel màcc na ci jëm yenn saa yi nga dégg loo xam ni dañu ne la yonent bee ko wax xëy na yenn saa yi mu nekk lu baax lu rafet ci say gët nga ne ah gannaaw moo ko wax naa ci topp mhm. kon tey jullit bi bu déggee loolu naka la war a def ci yenn xadis la mën a sukkandiku ba xam ne yii moom bu ko gisee wér na ne yonent bee ko wax ak yeneen yoo xam ne xëy na du am dalil ba mu mën caa sukkandiku def loola jullit bi daal euh, lépp loo xam ne dégg ko laaj ko boroom xam-xam yi. Hmm. laaj borom xam-xam yi bu ne borom xam-xam yi borom xam ku nekk fa nga màcc. Hmm. ndax ki nga xam ne ci fiq la màcc ba mun a xàmmee xadis bu wér bu wérut xadis bi na nangam bu boobaa yaa sonal. Hmm. parce que am na xam ci côté bi mais nag manqué na fii. waaw kon da ngay laaj euh, li ngay laaj fa mu màcc nga dem laaj ca waroom xam-xam ya xam ne ñoo ca màcc ñu wax la ne wala wérut. Mm. sooy topp nga topp ñi nga xam ne ñoo tegu ci alquran ak sunna comme ni ko laxdar yi waxee mm. nee na laajal boroom xam boroom xam-xam yi topp euh, ñi jaar euh, ca sunna mm. kon euh, nit ki bu gisee ñu ni lii kat yonent bi moo ko wala nanga war naa war naa wóorlu war naa wóorlu su ko wóorloo ba mu leer bu boobaa nag mu def jàpp naa ne léegi nii alhamdulilah mbir yi gën naa yomb gëstu gën naa yomb bu njëkk la jafe woon gis nga xam-xam xadis mhm. ay ay euh, mën nga ne benn siècle ci ginnaaw rek mhm. euh, pour nga gis sax benn téere buy wax ci xam-xam xadis jafe woon na fii ci suñ Sénégal gi boo xoolee suñ bo euh, yenn borom xam-xam yi fi jiitu woon te dëkk fi taalif nañ ci fiq mhm. taalif ci ba ci langu arab ci anam ju ne mais ñu ci bëri boo gisee maanaam taalif nu ci xadis xam-xamu xadis su ma ko mënoon wax sax nag dama naan la ñu bëri xamuñu ko woon mm-hmm. mooy mm-hmm. parce que ay téere dugg fi woon te nit ki mënta jàng maanaam lu egsiwul ci moom mm-hmm. téere yi jëm ci wàllu xadis presque daaw ko fi gis amu fi woon sooy dellu encore ci euh, référence yi nga xam ne ñi fi jiitu woon moom lañ doon dellu ak di ko wax da gis ni lu jëm ci xam-xam xadis yi bëriwul kon lu tumuranke la woon mais nag léegi yomb na laani parce que euh, xam-xam mm, ibbeeku na euh, te encore moyen yi nga xam ni léegi moyen jamono ji la nit ki mën na ci su mën na toog ci ordinateur am mm-hmm. tàppe boroom waroom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam ñoo màcc ci loolu luñ wax ci lii nga gis léegi ñu ne la al imaamul albani nee na nangam mm. imaam ahmad ibn hanbal nee na nangam ci hadis bi abu zur'at razi nee na nangam yaxya ibn ma'in nee na nangam nga xam àtte bi mu jeex mm-hmm. jërëjëf imaam gannaaw wax nga ni euh, xew-xew bi nga xam ne euh, moom la ñu am lu wér ne amoon na ci Ashura mooy keroog euh, ba yàlla di muccal Moussa alayhi salaam ci Firawna bu weesoo ko àdduna Hussein di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu taxaw nag ci bés booba nga xam ne ci la Moussa alayhi salaam mucc ci Firawna ci ndimbalu borom bi subhaanahu wa taala ndax mun nga ñu ñëwaatal ci xew-xew boobu ak li ci jullit ñi war a jànge ndax lu islam indi wala alquran indi ko muy taarix rek yaakaar nañu ne jullit bi war na am njàngat lu mu ci def am itam lu mu ci téye loo xam ne xëy na dana ko mën a doxee ci àddunaam. waaw boobu moom dafa fees dell ki ay njariñ yuñ ci war a mën a tiiree. Hmm. mais nag bala nga mën a tiiree njariñ bi il nga tënk ko. waaw mooy Moussa xisatu Moussa ci alquranul karim ak nu ko yàlla nettalee yépp hmm. xam nga Moussa alayhi salaatu wassalaam avant muy juddu dafa fekk Firawna. Euh, njabarkat yeeg euh, maaman yeeg borom xar fa foofa yi ñu ne ko yow sa nguur gi li koy daaneel kenn lay bokk ci banu Israil te góor lay doon mu ne ko nuqattilu abnaahum sax nastaxyi nisaahum góor gi ci judd nan la rey bay jigéen Moussa keroog bi mu juddoo yaayam tiit daf ne ko bul tiit bu raf dugal ko ci kees gi nga sànni ko ci dex gi inna radduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin dinaa la ko delloowaat yaay ji sànni ko ci dex gi ba pare ni ni ni sëram bu mag ni ko nag xus si topp xool ba xam fan lay teere hmm. yàlla jël euh, kees gi yóbbu ko ba ci buntu pale euh, firawna ba nga xam ne moom lan ko doon làq ak di ko daw moom mu ne fat eggi taxaw soxna firawna Asiya ñu for ko jox ko te yàlla amul woon doom hmm. mu ne ah, la te ñun amuñu doom te ñu ko doomoo firawna yàlla fàbbim xelam mu fàtte ni Mhm. war naa lijjanti ndax. Euh, kii daaneel nguur gi góor la wala déet mu ne ko aha kay ñu jël ko. xoolal ki nu waroon a rey. Mhm. yàlla jox leen ko leen force yéen a koy yar. Mhm. yéen a ciy sonn yéen a koy dundal mu def ko sax doomu buur ci palais bi. te yàlla comme ne woon na yaay ji dinaa la ko delloo. kun ko jox pour mu nàmpal rek Moussa bañ. ndaw si ni leen benn euh, séeram bi ni leen man ndax xam naa soxna soo xam ne liir buñ ko jox du ko bañ. Hmm. ñu ne ko demal moo yaay ji ñu yokk mu nàmpal ko ñu ne ko lii kay xalaat ko yow koy yóbbu ko sax sa hmm, hmm. gis nga yàlla delloo ko ko Moussa noonu la màggee foofu nag euh, ba benn bis xew-xew am foofu euh, diggante kenn ci copte yi mu ñu ñu bokk ci famille Firawna ak euh, kenn ci banu Israël di xeex mu ñàkk mu ne ko pour mu jàppale ko pour mu dimbali ko xettali ko Moussa bi muy ñëw di ko jàppale di ko sotal far mu ëpp musa dóor waaja mu dee hmm. yàlla nettali na ko ci alxuraan hmm. ah. euh, euh, bi loolu amee ah euh, Moussa alayhi salaatu wassalaam dem waa ji dem kenn xamul ki rey waa hmm. suba sa waa ji tamit di xeexaat xam naa ne waaju sikk la ni ko Moussa kaay dimbali ma Moussa ni ko yow ku sikk nga di ñëw nag mu ni bu ñëwee da di jëm ci moom mu ne ko Moussa Ba da nga maa bëgg a rey ni nga rey woon waaja hmm. kam lan xeexal moom bàyyi xeex ba moom daw nag moom hmm. ni nag ki reyoon waaja ndekete Moussa la ki reyoon Moussa ki reyoon waaja hmm. ndekete Moussa la euh, Moussa nag dégg loolu su su tuddaaye mën a mën naa gën a ko dawal Moussa daw bi mu dawee la dem dëk benn dëkk fu ñu wax am na lu fa xew euh, ñaari jigéen ñëwoon ci teen bi di duy Moussa duyel leen euh, ban demee ñu wax ko seen papa seen papa ne leen wool leen ma ko ñu woo mu ñëw euh, bi mu ñëwee ñu gis ko ni mu baaxee ak ni mu selle ah kenn ci doom yi ne ko papa kii te nga koo jël ci kër gi mu fi liggéey seen papa nand xam ni kon comme bëgg nañ mu dëkk ci kër gi kon bëgg nañ mu mu may leen ko soxna mu ne ko nag kon dama laa bëgg a proposé may la kenn ci sama doom yi inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya haatayni ala an tajurani samaaniya hijaj hmm. fa in atmamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashuqqa alayka satajiduni insha allah min as-salihin qaala dhalika bayni wa baynak ayyama al ma naqul wakil ala ko al bëgg may eh, di cité aay ndax hmm. comme day jël temps bari hmm. ne ko daal dama laa bëgg a may kenn ci sama doom yi stan bi nag mooy nga liggéeyal ma huit ans so ma soo ko defee dix tamit baax na parce que bëgguma laa sonal. Mhm. Moussa d'accord ba mu matee mu jël ay doomam ak njabootam ñëwaat yàlla ni ko nag kaay euh, ma defal formation ci yoon bi. Mhm. mu gis benn tàkk-tàkk mu ne ko euh, mu dem ca. defe ni ni nekk ndekete yàlla moo ko fa woo bi mu ñëwee yàlla ni ko ana rabbuk saxlaan alay mhm. man maa may sa borom daal mm-hmm. yaa ngi ci place bu sell yet bi nga yore lan la mënu ko yet bi de ci laay yore di ci sukkandiku di ci kii samay gàtt mu ne ko sànni ko mu sànni ko muy ja muy jaan mm-hmm. juy wallax wallaxi Moussa tiit mu ko jëlaat ko Moussa jël ko mu ne kaar yat mu ne ko nag léegi demal ci Firawna nag nga jaamaarloo moom te nga ne ko nag yàllaa fi nekk na jaamu yàlla moom du yala du damitu yàlla mm-hmm. waaw lim naan ana rabbukumul aala loolu c'est faux Moussa bi mu eggee nag nekk ci nag ak na nag di ko kii nag ñoom ñaar ña ci ba firaw na def ko noonu mm-hmm. mënatu koo déggu ci argument yi ko Moussa jox nag mu ne da koy rey musa ànd ak ñi ko gëm ñuy daw bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi daw dem ba firawna di leen waaj a jot ñu xool firawna ak ñim àndal bëri lool bu leen jotoon moom ci saasi du yàgg ñu massacre leen mm-hmm. te ñoom ñi ngi waaj ñu xool dex gi nekk seen kanam amatuñu fu ñu mën a def wàññee ko rek la mën a wala ñu lab. dugg ci ndox mi. waaw ñu ne ñu ànd ak Moussa ne ko inna la mudrakun affaire bi jeex na nag léegi ñun moom léegi euh, dab nañ ñu Moussa ne leen kalla inna ma'iya rabbi sayahdin mukk yàlla mi ma dawloo dina ma wutal pexe ci la ko yàlla ni ko nag euh, dóoral sa euh, yad wi ci dex gi na ko ci ñetti ci ñetti anam ci alxuraan. Mm-hmm. fan fajarat ñëw na fan bajasat ñëw na fan basaxat ñëw na ci la ci la dem nag ba génn Firawna nekk di gëba mu lab loolu ci euh, tam xarit la amoon. Mm-hmm. mais yiñ ci mën a tiire dafa mën a bëri mooy yàlla rek la. Mm-hmm. ku fi rëy rëylu ba naan may yàlla yàlla dina la toroxal. ñaareel mooy gis nga jàmbi pexeem la am mais yàlla mooy dogal. Firawna pexe bu nekk def na ko pour nguuram mën a sax. mais bis bu ko yàlla na naree nërmel da koy nërmel. Mhm. kon keneen ku mu fi mën a doon loi boo mën a indi pexe yoo mën a indi soo moytul maanaam yow lay njëkk hmm. parce que nguur moom fa mu war a mate dafay mate mënoo fexe ba mu yokk vergel. Hmm. jullit bi tam beneen bi nga ciy jàngee mooy toujours da ngay gis ni euh, dëgg ak neen toujours dañuy dañuy dañuy jaamarloo ci jamono. Hmm. ci société bu mu mënti doon. ñii dañuy taxaw di défendre dëgg ñiy taxaw di euh, tasaare ak neen waaye nag mën naa yàgg lool mais yàgg-yàgg résultat final ba mhm. mooy dëgg mooy taxaw mhm. parce que wal aqibatu lil muttaqin mënees na caa jàpp itam ne jullit bi war naa doyloo boromam ndax euh, mhm. yaayu muusa ba ko yàlla ni sànni ko xëy na bu wóoluwul woon boromam du ko sànni ndax kañu ne la ma ngay rey ndax bañ doom ju góor juddu ci dëkk bi. nga mhm. sànni mu teeree ci buntu këram loolu kóolute rek moo ko mën a lal. loolu la loolu la loolu da war tax nit ki xam ni wërsëg. Mhm. ala kulli xaal wërsëgam dina ci jot kenn mën na ko koo xañ. dëgg la moo tax nen nit ki dafa war a rafetal rek ni koy wute. Mm-hmm. bu mu ko wute mukk ci anam bu baaxul bu mu sàcc bu mu wuruj bu mu lor bu mu euh, mais na jug sabablu. Mm-hmm. lu jug sabab lu yàlla dina ko jox wërsëgam mhm. waaw alors imaam euh, ñu wéyal waxtaan wi wa tey fàttali ni imaam Abdoulahi Baba Dieng euh, la dalal mu nekk ci Louga ñuy waxtaanee Ashura di fukkeelu fan euh, ci weeru muharram lu bari xewoon ci ci taarix ci islam waaye ni mu ko fàttalee ci waxtaan wi bi ci am dalil rek mooy bés bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala muccal na Moussa alayhi salaam ci firawuna ak itam bés bi nga xam ne ci la Hussein di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, faatoo ca Karbala ci xare imaam euh, weer bi ci boppam it bëgg naa ñu wax ci tuuti ndax dañuy faral di dégg muharram ci weer yi sell yi la bokk yenn saa sax ñu ne mooy weeru borom bi subhaanahu weer wi bu weesoo ashura gi euh, lan lañu ci mën a jàpp ci taarix jërëjëf xam nga weer yi moom ci ni ko yàlla tërale fukki weer la ak ñaar hmm. yàlla wax na ko ci alquran mhm. nee na inna iddata shuhuri inda allahi isna achara shahran fi kitaabillah yowma xalaqa samawati wal ardi minha arbaatun xorom nee na weer yi fa yàlla fukki weer la ak ñaar am na ci nag ñeent yoo xam ne ñooy yi gën a sell yi gën a am orma mhm. ñeent yooyu mooy yan mooy weeru euh, shawal shawal buñ ko waxee mooy weeru korite euh, ak zil qaada muy weeru digg ak zilxijja muy weeru tabaski ak muharram muy weeru tamxarit bi eh, eh, déedéet eh, dama juum zilqaada weeru digg mm-hmm. ak zilxijja weeru tabaski ak muharram muy weeru tamxarit bi ñeenteel ba muy rajab mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa xadis bu wér mu ne rajab modaar alladi bayna bayna jumaada wa chaabaan mm-hmm. mu Euh, ñeenti weer yooyu mooy yi ci gën a sell muharram nag moom lañ wax shahrullahi al muharram weeru yàlla bi ñu tudde muharram mooy mooy bi ci jiitu hmm. ndax atum lislaam ci weeru muharram la tàmbalee mi ngi mel ne euh, kiw milaad bi di tàmbalee ci janvier hmm. kon moom euh, ci muharram la tàmbalee weer la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ci wàllu woor lim woor ci weer woowu mu ëpp lum daa woor ci waneen weer budul weeru koor koor mm. budul weeru koor rek lim daa woor ci weer woowu moo ëpp beneen bi ci des mooy euh, muy weer boo xam comme ni ma la ko waxee weeru sell la mm. weer wu bokk ci weer yi ñu ormal la kon euh, loolu mooy chahrullahi al muharram mm-hmm. Mm-hmm. alors weer wu ni mel bu taxawee lan na ko wutale ak yeneen weer yi ndax xëy na am na loo xam ne bu ko jullit bi defee euh, da nekk promotion ci moom dañuy faral di ko dégg wala bu defee safaan ba itam dana gën a doon loraange ci moom euh, lan la jullit bi war a bàyyee xel weer yi nga fi lim muy weer yi ñu tuddee weer yu sell yi. waaw yàlla dafa bind te gënale ci lépp nag ci nit ñi bind na gënale xam nga ne rasulullahi sallallahu alayhi moo nu gën. Mm. Euh, ci bërëb yi mu bi euh, mu bind te gënale xam nga ni Màkka moo gën luga ah, gën beneen dëkk bu mënti doon fii ci Sénégal mm-hmm. noonu tamit la bind ay weeram gënale leen noonu la bind ay bisam jël àjjuma gënale ko noonu la bind ay guddi jël guddig Laylatul Qadr gënale ko noonu la bind ay bëccëg jël bëccëgu euh, arafa gënale ko kazaalika weer yi tamit ci la jële ñeenti weer yooyu ma la wax mm. gënale ko ah, Euh, euh, soo ci boole euh, wala boog def ko li ñu tuddee ashurul xorom mm-hmm. ndax weeru koor sax moom ci weer yi gën a tedd ci la bokk mm-hmm. kon weer yooyu nga xam ne dafa am ak jagle am leneen lu ci dolliku ci ci orma mm-hmm. la chak bu ci nit ki di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ay tuyaabam da cay yokk waaye nag bu cay góorgóorlu ci jaamu yàlla na nekk jaamu yàlla yoo xam ne yoo ñu boyal la koy wutal Euh, bërëb di ko wutal wala mu koy wutal ay ay ay euh, ay heure wala ay limite wala ay lim yoo xam ne mën na ko koo génne euh, ci jaamu yàlla dugal ko ci bidaa misaal li ma wax ci loolu mm-hmm. masalan nga ni man guddi gu njëkk ci weeru tamxarit mm-hmm. ah guddi googu dinaa ci julli juróom fukki rakka ndax ku ci julli juróom fukki rakka yàlla dina la jéggal sa bakkaar yu njëkk ak yu mujj mm-hmm. képp koo xam ne jàng nga ci mille neuf cent soixante dix neuf laa ilaha illallah kooku bu boobaa moom bala ngaa faatu euh, di nga bijjaaw maanaam pas-pas boobu nag bu ci nit ki amee bu boobaa da koy génne ci jaamu yàlla mm. dugal ko ci bidaa moo tax bu boobaa nit ki nga xam daal mi ngi ci ay fan yu yu sell mi ngi ci ay guddi yu sell lu mën a góorgóoru selon waxtoom moo mm. koy def mais boyal ko bañ ko wutal lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wutalul bañ ko coloré encore lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa boo ci waaye ku ci def safaan ba tamit nag mm-hmm. bu boobaa tamit noonu la bàkkaar bi di eh, rëye eh, moo tax nit koy ñaan tey góorgóorlu yàlla dolli ko ci cawarte mu nekk ci jaamu yàlla waaye yàlla dimbali ko ba mu mën cee mucc ci ay bàkkaar ba faw mm-hmm. kon ñu ngi ci weer wi jeexagul eh, yàlla noonu borom bi dimbale ba nu mën caa góorgóorlu imaam wax nga sànq tam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam exemple bés ba mu faatoo kenn màggalu ko xëy na amul cosaan loo xam ni mënees na caa sukkandiku di ko def niki noonu yeneen saxaaba yi nga xam ne itam ñoom la fi bàyyi ñu wutu ko lan mooy atteb màggal loo xam ni ki Ashura bi parce que gis nañu léegi def nañu ko euh, xew-xew te nee nga cosaan li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bàyyi fii mooy koor gi alors luy atteb màggal yooyu euh, te xëy na amul fu leer fu mu tegu ci jullit bi mm-hmm. xam nga tey jullit ñi wax dëgg yàlla nag euh, ñu ci bëri du ñëpp nag mm. mais ñu ci bëri tey euh, tur ba rek la ñu dese ci lislaam mais lu bëri ci àtte lislaam xamuñu ko mm. même ñun ñii sax di fëgg suñuy dënn naan sunu Sénégal gi lislaam bi fi nekk ku ko du ma sax ndax loolu moom bokkul ci teggin mm. amat dara loolu sax maam musiba la parce da ngay gis ni ñu bëree bëri tey boo leen doon laaj boo jë boo jëloon micro trottoir rek laaj nit ñi ci yenn yu gën a teeraa teer tey àttal islam xamuñu ko jëlal nag jëlal nag euh, mag jëlal ndaw jëlal jigéen jëlal góor. Mm. kon euh, li lay won ni rek bisu tamxarit du bisu fet mooy koor gën ci def gis nga bisu fet dafa arab nit ki woor ko. Mm. ci lislaam noonu la lislaam jàngale bisu tabaski ku ko woor da ngay am bàkkaar. Mm. bisu korité ku ko woor da ngay am bàkkaar li waral loolu mooy lan mooy ay fet la ci lislaam kon bu ñëwee bisu tamxarit yonent bi ni woo dama koy woor wóor leen ko loolu mooy kon du fet mhm. lii dong moom la ci santaane te nag dama naan Sénégal kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla ku bëgg yonent bi ñëpp ku tey woote woon ci yonent bi kenn ku ne mën naa jël la mu am yëpp jox boole ceeg ay jooy mhm. kon bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais nag il faut que ñu jéem a roy li yonent bi santaane xam nga simple na trop man nekk fii ci Louga. Mhm. yow nekk foofu ci Dakar ak bépp góor ak bépp jigéen. Mhm. ñu ni léegi li nu bëgg a xam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la defoon ci bisu tamxarit tamxarit fekk na ko fi wala fekk ñu fekk ko mhm. fi ñu ne ah kay ko fi bi ko fekkee xam na ni bis bi mooy tamxarit wala déet ñu ne ah kay xam na bi mu ko bi mu ko xamee ndax def na ca dara wala déet aha kay def na ca dara yonent bi lan la ca def ñu ne yonent bi woor la ca def ñu yem ci koor parce que mënuñoo xiir ba gën a xiir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu baax mun mm-hmm. ñow xamit nag ba gën koo xam li li jàkk ak li baax ñu war koo def ci bis bi mm-hmm. te moom lañ ñu royuloo kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mm-hmm. loolu la yàlla wax roy leen ko wa in tuti'uhu tahtadu te bu ngeen ko ye rek jub te wa ma aataakum rasul fa xuduhu wa ma nahaakum an fantahu lu mu leen jox jël leen lu mu leen tere bàyyi leen mm-hmm. moom lii dong la ñu jox xam nga nit fii ci Sénégal tey lii maa la koy wax ci rajo public mm-hmm. waral ku fi nekk tey ci Sénégal ku ñuy wax boroom xam-xam ak euh, ku ñuy askanel xam-xam mm-hmm. ak kuy wax ci tuuru diine kenn ku ci nekk nga ni dama lay laaj ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisu tam xarit wér na ci ay texte yu leer ci moom ni joxe na ci leneen lu dul woor ndax yonent bi moo ni nan dem defi ay taaje boon ak yooyu ndax yonent bi moo ni nan ko jàppee bisu naqar ndax yonent bi moo ne nan ci euh, julli euh, téeméeri rakka ndax yonent bi moo ne nan ci euh, tusngalu di xool Fatima mu nekk ci kaw di fóot su fekkee ni boroom xam-xam la boo xam ni mi ngi bàyyi xel boroomam te mi ngi bàyyi xel kamit ñu ne ko lii foo ko jëlee. Hmm. an ana ana ana fa mu nekk ci alxuraan ak sunna booba dina la ay la yéwoon yonte wax ko xanaa kay lam lay wax lam lay man a wax ne gis naa ko ci téere sàngam wala gis naa ko ci téere sàngam mais eh, du leen la mukk moom gis naa ko ci alxuraan wala gis naa ko ci sunna hmm. kon nag comme mbir mi leer na noonu wax dëgg yàlla euh, te ñun tuyaaba rek lañu ñu bëgg ñun ñëpp. Hmm. nañu yem ci li yonent bi sallallahu alayhi wa joxe. bu booba ëllëg ñu fa yeeku. Mhm. imaam euh, fi ñuy jeexalee xëy na mooy euh, yenn xew-xew yu mel ni Ashura am na xëy na ñenn euh, umpale nañu sax ne war nañu cee woor lu mel ni tabaski itam dañuy seetlu yenn saay boo ne juróom-ñeenti fan yi weesu yu jiitu tabaski sunna lañu woor ko am na ñenn mbetteel lay jur ci ñoom euh, boo ko seetee ba seet dafay mel ni taarixu islaam ak xëy na yenn santaane yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci ay fête surtout dañu koy fàtte ba daanaka ñun xumbaay gi ak gi mooy tegu ci kaw li nga xam ne mooy jaamu yàlla bi te xew-xew yooyu doonte ay fête la euh, da ngay gis ne itam jaamu yàlla rek moo lal fête gi loola ban jàngat nga ci def ak loo ci gis euh, comme saafara jàngat bi ma ko bi ma ci njëkk jële mooy ñun ñoo ko teg suñu bopp danga may laaj lu tax mooy euh, xoolal suñu système éducatif bi xoolal suñu ministère de l'éducation bi xoolal la ñuy jàng ci école bi duma leen nga tàmbali sixième ndadda mm-hmm. mais tàmbalil jardin d'enfants xale bi day am trois ans mm-hmm. et ça deux ans et demi sax nag ñu jàpp ci loxoom yóbbu jardin mu nekk foofu am cinq ans six ans ñu dugal ko sixième mu dem ba première wala def euh, en transition ak certificat jóge fa dem sixième secondaire ba am euh, BFEMam jóge fa dem seconde ba am bagam ca terminal jóge fa dugg université def fa huit ans jëm neuf ans ba am doctorat d'état diggante boobu yépp doo ci gis fu ko jàngale l'islam doo ci gis fu ko jàngale histoire l'islam mm-hmm. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. te pourtant Mouhamed la tudd di jullit ci ndey ci baay. Mhm. Sénégal quatre vingt dix huit pour cent ay jullit lañ. waxal ma na depuis mhm. année quatre vingt la. fii ñu toll nii quatre vingt dix huit pour cent ay musulman lañ. Mhm. nga xool suñu système bi yëpp nooy jàppe boo ci yemoon boo ci yemoon doo xam nooy jàppe te pourtant dinañ ñu jàngal Descartes jàngal ñu Socrate jàngal ñu civilisation. Europe ak France ak yooyu nañ koy maîtriser nañ ko xamee ah seen constitution dañuy taxaw di ko tari boo nuy woon constitution l'islam dañ ko xam mm-hmm. histoire yi xamoon yi yi aw yi amoon ah ci Europe ak Amérique yooyu yëpp dañ koy maîtriser mais ci l'islam zéro ci l'islam zéro li ko waral kon ñun la ah, euh, tubaab yi dañoo ñëw changer suñu système éducatif ñu ànd ci ñoom ñoom ñu jógee fi dem banu fi ñun ñu continuer lii moo tax ñu ne ay jullit lañ ñun ci judd ci tur ci lépp bëgg ko lool nag waaye lu ci bari ci ñun xamuñu ko parce que jàngaluñu ko xëy na euh, président bi fi jóge avant président bi def na ci benn effort bu ndaw mooy jël na sax éco yenn école mu dugal ci euh, éducation religieuse. Hmm. te loolu dafa war ba biir université parce que ay jullit nag boo leen di jàngal. mais lu néew néew war nga leen a xamal seen diine buñ la joxee seen seen bopp boo xam ne deux ans et demi trois ans lan la jox seen bopp hmm. jëm trente loolu lépp nga téye leen te xamaloo leen dara ci diine ñooñu euh, te bu ëllëgee ñooy yore réew mi hmm. bu ëllëgee ñooy ñooy ñooy yi ñooy ñooy ministres yi noonu rek lay mën a demee hmm. waaw alors la jàngat boobu daal man man moom laa saafara si xëy na loo ci gis saafara si Mm-hmm. mooy ñu ñu ñu ñu dugalaat njàngalem l'islam bu baax a baax ci biir école yi dugal ko ci bu baax ma mu bañ a yem rek ci li ñuy wax ay euh, euh, école franco arabe déedéet tey xoolal ay euh, état bi reconnaître na léegi bag yi ginnaaw xeex bu metti mm-hmm. mais mais amul benn université boo xam danaan la lii université islamique la ba ñi nga xam ne ñoom seeni seeni waajur lu ñu li ñu copté woon li ñu tànnoon. Mhm. ba seen doom yi nekkee xale ba bi ñu am bac mooy ñu jàng l'islam éducation religieuse. Mhm. ñu dugg ci seen école arabe yi nga xam ne état bi sax defu ko mais ay ay ay ay ay ay volontaires ñoo def seeni école privée. Mhm. ak coona yi ci nekk ak ñu jàngal xale bi ñu jàngal leen fekk jàngal yépp ba mu am bagam du am université boo xam ne ci la mën a àggale branche boobu mu nekkoon. dañ koy yóbbu Dakar. yaa ngi dégg wala ñu yóbbu ci université yi nga xam ne ay privé la. Hmm. yu te état bi kii ak ñoom. université yooyu ñu ñu soppi seen kii complètement hmm. bu ñu doon jàng kii léegi ñun ñun ko léegi demal léegi communication ngay def yow léegi demal nangam parce que fag yooyu ñoo fi nekk. Hmm. nga dem tàmbaliwaat à zéro leneen. waaye non da ngay da ngay cartouche sax parce que boo demee xam nga yeesa di nga am blocage ci langue bi yeesa di nga am blocage ci lii nga xam ne da nga ko da nga cee am base. bëgg koo tàmbali léegi. da ngay dem un an deux ans nga arrêté wala nga dem seeti leneen hmm. ci koo xam ne tey euh, su su su continuer woon loolu bu subaa bu ne ko yow yaay président de la république mu mën a yore maam état bi te dara du xew hmm. parce que seen morom yi nga xam ni euh, jàng na noonu ba am seeni bac continuer ko te nekk ci yenn réew yi nga xam ni euh, ma ay réew arab lan ñooñu ñooñu ñoom ñooy ñoom ñoo ñooy nekk ministres ñooy nekk juge yi ñooy nekk lépp ñun am nañ euh, suñu collègues yu bëri yoo xam ne ñoo nekk doon université don bokk benn classe doon toogandoo naan kii mooy juge bi ci nangam kii mooy ministre ba ca nangam kële mooy nangam mais fii blocage euh, euh, langue bi hmm. tax na léegi nit ñi comme ñi dañuy xoolee àdduna dañuy jël seen doom dem yóbbu leen ñu jàng kon leneen bu boobaa nag lu ci bëree bëree bëree bëri mën naa tax duñu duñu xam seen diine ñu ko a xamee hmm. am nañu tam seen fulla ak seen fayda nag ñoo xam ni moom euh, donte ñu ngi jàng waaye ña ngay lu ci seen góorgóorlu bopp dem di gëstu seen diini hmm. dem di jàng même université sax boo ci foo ca dem. Mhm. da ngay gis ni am na ñu cay ñu fay nekk di góor góorgóorlu même bu ñu fa doon tabax seen jàkka joo xam jàkkay zeng la. Mhm. bu ñu fa doon tabax seen nangam dañ fay ci di seen waxtaan. Mhm. da ngay dem sax ba boo moytul étudiants ya ci seen góorgóorlu bopp du luñ jàng ci fag yi. ci seen góorgóorlu bopp ñooy taxaw ci kaw min bari di ba seen yeneen morom étudiants yi. ci biir université yooyu di ay ndimbal ak ci taw tawfeex yoo xam ne mi ngi am. waaw mais daal tey état moo ci war a gën a moo ci war a gën a taxaw. ñu xam ni lu ñu am suñu l'islam bi moo ko ëpp doole. Mhm. l'islam nag laa wax nga baal ma parce que Sénégal. Mhm. dañoo topp maanaam confrérie dëgg. waaw fu nu war a teg baatu l'islam dañ fay simple l'islam teg fa confrérie. Mhm. muy tarixa waaw jàpp na ni sax léegi maanaam mënoo nekk jullit te nekk ci tarix moo tax da ngay dégg la ñu nekk ni ñu dara. xam nga ma athée bi sax gëm na dara. mais l'islam bi man laa wax. moo euh, tey. Euh, maa ngi wax ci baatu l'islam mais waxuma ci baatu benn confrère yi mhm. hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal la ci démb ak tey doon waxtaane euh, cosaanal Ashura di fukkeelu fan ci weeru muharram euh, ñu xamee ko tamxarit fii ci Sénégal di ci faral di def ay xumbute waaye xëy na lu bari lu làqu ci ginnaaw bés boobu muy exemple bi lislaam ci na waaye itam bis bi nu rayee Hussein di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xewee woon ca Karbala euh, juróom-benn fukk ak euh, benn euh, ci atum gàddaay gi imaam ñu ngi lay gërëm bu baax di sant itam Serigne Talla Diop mi nga xam ni moo waral xame gi ndax am itam ne sa xam-xam màcc na lool jëm ci li ñu doon waxtaanee tey. jazaakumullah xeyran mm. ñu ngi leen di gërëm di gërëm seen rajo boobu. incha allah rek ñaan yàlla mu barkeel ko. amiin amiin kon mbokk yi li nekkoon seen émission démb ak tey euh, Diawo Diallo nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom fare woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.